assemblée nationale woote na démb suppression bu yi ëttu àttekaay boobu nag ci atum 2013 moo fi àtte woon ba tëjlu fi Karim Wade waaye nguuru Sénégal dafa jàpp ne mënul xeex crime économique yi pour judiciaire financier nag moo ko war a wuutu ñi ko nax sëkk di ay magistrat yu seen xel màcc jëm ci wàll boobu préfet bu Ndakaaru moom dafa gàntal càkkuteefu manifester bu F24 bi mu jàpp ne trouble à l'ordre public la bi nag di ay yooni yoon préfet di gàntal yëngu yu f 2024 ci fàttali nag talaata bi ñu génn la mouvement bi woote woon ngir manifester ci aljuma ji li ñuy sàkku nag di ay élection yu jaar yoon waaye tamit ñu teggi loxo ci ni mu gën a gaawee ñi nga xamante ne dañ leen jàppee ay détenus politique Déthié Fall jamono ji nag mënul jot ci màkkaanam fourgon yu gendarmerie ñoo baare buntu siège bu PRP bi nga xamante ne foofu la leader yu yeewi askan wi naroon daje démb Déthié Fall bokk ci ñi fësal seen candidature ci élection yu 2024 jàpp ne lii xew ni kenn xamul lan la te mu ngi gën di jéggi dayoo Baye Modou Fall ñu gën koo xam ci booy jinne moom teggi nañ ko loxo tey jii moom nag lu ëpp fukki at a ngi nii mu ngi ci kaso bi ñu koy toppee ay délit bu Sénégal nag li ko siwal mooy yoon yu bari yi nga xamante ne rëcc na ko ci kaso bi seex yu jigéen yi ñu doon wër àllarba ba tey mujjee nañ gis seen néew ñoom ñaar nag dañoo bokk ci gaal gi jóge moritani te suux ca podoor jéeye ji nag ba muy am seex yi nga xamante ne ñu ngi toll ci juróom-ñeenti at seen yaay lañu àndaloon jóge ca Mauritanie doon dem ca podoor attaquant sénégalais bi di Sadio maane soo moytuwul saison bi di ñëw dina fubbali ji ci Arabie Saoudite bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di L'Équipe nag Sadio maane pare na ngir fubbal ci club bi di Al Nassr foofu nga xamante ne janvier ba tey kii di Cristiano Ronaldo mu ngi fay football